amee naka mu. ça va bien. guys. lépp jàmm. yaa ngi góor. jaajëf waay. jaajëf amee Wally na. pour préparer le grand jour. jaajëf waay. les trois dates. à retenir vingt cinq vingt six vingt sept naka suba si. waaye sant yàlla. jaajëf jaajëf jaajëf waaw waaw ah. ah, mais Wally Dakar Live ma ngi leen nuyu. maa ngi si àar ñëpp. jaajëf waaw jaajëfati. merci. jaajëf bro naka la jaajëf. ah. waaw waaw waaw xaaral. voilà gars yi ñu ngi nii ah, ci li nga xam ne moo nekk ci féeri Gambie bi ah, en compagnie du Golden Boy de la musique sénégalaise Wally Ballago euh, Ngouda Amina Baba Amina nekk ci otom bi nga xam ne moo nekk Maybach ah muy oto bi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci Sénégal ces temps-ci oto yi nga xam ne mu ngi fiy daw mu nekk ci ñu ci gën a euh, fës la ci genre bi nii donc mu ngi nii nag nekk ci biir otom li ci gën a neex nag moom mooy dawalal boppam ah ñëw diwaanu Gambie ah, di waajal li nga xam ne moo nekk 72 heures yi mu def fii diwaanu Gambie ah, defoon na ko ñëw tollante yoon nag mu ne xale yi lay nekkal ah, fii ci diwaanu Gambie def loo xam ne spectacle son et lumière lay doon lépp pour bégal xale yi laata ñuy dem ci li xam ne nag moo nekk ci weeru koor bi ba tax na mu ne damay ñëwaat ah sama fan yi nekk biir Gambie ma bégal leen ñoom ñëpp ah cat ba cat donc gis ngeen waa li moo nekk ne ci porte bi di ubbi wax ak si ginnaaw ginnaaw na le donc mu ngi ñëw na ah lépp pour waajal li nga xam ne moo nekk euh, show bi tey donc voilà donc lépp daal jàppale ne euh, la golden boy de la musique sénégalaise il est là euh, toog ci féeri bi nag di waaj a départ dugg fi nga xam ne mooy biir Gambia dugg nag ci capital bi su ko defee nag mu waajal waa Gambie tey li nga xam ne moom nekk tey bala benn set ak jàmm ma ànd seek sama doomu ndey italique borom click Dakar jàppale ne artiste bi mun fi ah, donc gis ngeen ah xaw ma may di wax xaw ma may may lan la mais gis ngeen oto bi hmm? ko dawalal boppam voilà ah ginnaaw bi mu demee demee RTS euh, autant pour moi 2S One Nation gis nga lim fa lim fa wax ci projet bi léegi nag mu ne waaw Gambie ñëpp xam nañ Wally ak Gambie démb la tey soog a ñëw ah, Papa Thione ak waaw Gambie démb la tey soog a ñëw mhm. léegi nag mu ne waa Gambie yéen euh, waaj leen damay def ak yéen show un show de inédit di lay doon euh, pour cent lumière waaye tamit lépp spectacle boo xam ne musul am fenn Gambie daal ñoom mi ngi noonu ah mhm. donc xool leen xool leen hôtel sa situation voilà xoolal xoolal faar yi. am eh, ay protecteur nee na moom star la ah, a confirmé ça voilà mu donc gis nga euh, gars yi dañuy ñëw di waxtaan ak artiste bi euh, kenn ku nekk rek da waxtaan ak moom saafante ak moom euh, parce que moo ko moo ko ko ji moo ko ji doomi aadama yi donc comme li ma leen wax rek le golden boy de musique sénégalaise mm-hmm. Baba Amina Gouda Amina moom mi nga xam ne bu wéyee mu neex ah barki Demba la dem 2S wax sénégalais yëpp di ko bàyyi nopp waaye mu wax loo xam ne mm-hmm. ku ko dégg di nga tax nga am mm-hmm. jom xam fi ngay jaar ah, artiste bi jox rendez-vous waa Gambie def 72 heures ak ñoom waaye la ca gën a neex mooy dafa bokk ak xale yi ne leen ñëw leen ñu feete ndax xale yi waaliyee lañ leen jëkk a wax ñu dem ba naan paaw waaliyee maire waaliyee te Gambie ak Ramadan histoire bu yàgg la te sénégalais yu bëri dañ koy bañ a umpale yenn saa di ko bañ a xam waali tey nag mu nar a biir Gambia ah waa Bakoteh Ibo Town biir Kaama ku lim da ngay juum. lu mu tàmm lu mu dëkkam donc voilà ah. Euh, te fierté la ci ci ci Sénégal bi ndax ku wax bi wax Sénégal euh, te fierté boobu noonu Wally mu ngi koy prôné tax dañuy wax sa suur rek ne artiste bi porteur de voix la te moom mooy jox li nga xam ne moo nekk nit ñi buñ ko dégloo rek dañ koy bàyyi xel donc artiste baa ngi noonu ndeysaan moom il est modeste ndeysaan ah, mi ngi noonu day li ma gën a li ma gën a mais artiste man dama si yëm si yow bu fu ñu fekk rek yaa ngi ree ko ah. am na meer bu ko mais Waly bu nekkee si kaw seen day reetaan rek ma ne ko naturellement noonu la kooku <laughs> Baye Fall la le centre bi kooku kooku la Sénégal bëgg kooku at la bëgg moo nekk nii. sax si sur SDT ma dootuma la laajati loo nar parce que ko ko tol daal ko doo ñëw soosu adiko te kenn du baari sa yoon wax nga wax na ko ci soo bi waaye clip bi clip bi sax feeñ na voilà c'est ça du ma soosi adiko kenn ma soosi adiko kenn te nee nga ma gars yi xam nañ ma voilà loolu leer na cey mais mais naa la dénk nag benn affaire dee la ko sa fans yëpp ne li nga joué Louga. dafa mel ni da ngaa namoon parce que commentaire yëpp. Dakar la ñëpp di wax Dakar foo dugg moom nañu wax. naan ma Paco mais waaye lu mu joué Louga lan la leen ñebe la. ñëpp xaj na ci ñebe la ñëpp ñëpp mën nañ cee góor mi mo yégal bi dafa bëgg mu dawaale xaaral xaaral profil waaw mu ngi noonu Aning Bara mbokku Gambien ah ñu ngi soo ñu ngi Gambia nii ci féeri bi lépp rek di waajal bés bi ah ñu war fee def ñett fan ànd ki nga xam ne mooy Wally Balago Seck soo Gambia ñëpp a ngi waajal nag li nga xam ne mooy bés bi ah. Wally Wally ñun dañoo am Wally fépp yëpp fépp lañu am Wally parce que dañuy liggéey lii il faut ñu jox sénégalais ah, continue voilà mu ngi noonu donc gars yi ah comme ni ngeen ko waxee rek Euh, artiste baa ngi nii ah euh, saa su nekk ndeysaan moom day day yombalal gars yi seen job su ko defee ñu am ah, jox ay fansam li nga xam ne moom lañ ko doon xaaree donc mu ngi nii jàkkaarloog ñun. mais est-ce que xam nga ne dëkkam la ñëw bu mil lu wax naa ko samay njëlbeen wax wax naa ko samay njëlbeen wax léegi nee naa Gambi ak daan dañoo yàgg du léegi. dëgg la ndax boo xoolee suñu papa ja papa Thion wëy na ko sax ndeysaan bi muy wëy Yaya Jammeh Diourdine mm-hmm. Jammeh mm-hmm. Baraka mm-hmm. moom aussi mu ñëw labaliwaat ko moom Wally Ballago Seck donc nee la nit bu yoon booy jaar day fekk ne yoon boobu nga fekkoon nit ñi si jaar nga jaar si ah, te tamit nag tey Gambie spectacle bi mu nar am tey xale yeeg ñi ko si bokk ah, yoon daf ne xale yi dañuy bokk ci spectacle bi ndax su ko defee balaa ñëw dem koor xale yi mën a béggee xam nga dafa boole xale yi ci yëfam te loolu mooy artiste voilà donc gis ngeen gis ngeen donc gaa yëpp a ngi ñëw nga gis artiste bi pour saafoonteeg moom ndax ñëpp bëgg gis nit di saafoonteeg moom parce que loolu mooy àdduna voilà donc c'est ça voilà donc ndeysaan ñëpp a ngi bëgg a saafoonte ak artiste bi ñëw di wax ak moom mhm. lépp rek pour wax ak moom parce que mhm. ah moo ko moo ko liggéey tamit moo mhm. liggéey moo ko liggéey voilà c'est ça donc en tout cas daal jàpp leen nii artiste baa ngi nii. Ah, di di di wax ak gars yi. di jënd pu di dugal puce Gambia. mu ngi noonu pour mën a euh, jokkoo ak ay nitam ak ay nitam ñu nekk Gambia. voilà li ci a neex mooy dafa ñëw ba ci féer bi wàcce li nga xam ne moom ngi noonu. veeram pour waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy bëgg a waxtaan ak moom. Mhm. gis ngeen Faramareen a ngi nii voilà. kooku ngi noonu di doomu ndeyam di léppam di frère am macha allah. cey woykat bi. comme ni ko sama copain di waxee ñaaxal leer wax nga dëgg man borom mobile bi moo tax gisoo soo ñëwee da ngaa gis waali léegi ñëwal nii ki sa kanam aca kaay waay waaw yéen a ngi kontaan nga. am ngeen kan waaw sa xol mu ngi happy. maa ngi yaa ngi feer. saa yaa wàll naa. ah amul benn oro. Thank you.